président Macky Sall bi mu naan bi mu ñuy dénk secteur microfinance dafa am lu am solo lu ñuy dénkoon dafa ne lépp lo xam environnement la lu askan bi di soxla ci walu fa ñuy dem di fa jëf jëflante lépp luy taxawayu état na ngeen ko def kon lolu dafa taxone ñu ñëw fofu di jëflante mutuel bi te yamuñu ci tax gisoon nañu aussi taxaway bi nga jaarale ko ci seeni membre am nañ ko kon ñu def ko benn def ko ñaar ba tey ji ñu ñëw yëkkati ñaar téeméeri million yoo xam ne jot nañ ko ba pare mi ngi ci seeni kees yaakaar naa président bi confirmé na ko ñu jagleel ko juróomi juróom benn kees yoo xam ne kenn ku ne la nga war a am ci kees yooyu ngir mën ko jébbalaat askan wi def nañ ko xam nga ñaare bu ñu ne ministre de la microfinance mi ngi ñëw Nini ñi dañuy jàpp ne dafay ñëw yëkkati koppar jox ko nit ñi mais ministère bi mënul def loolu am bu ñuy wax économie sociale et solidaire bobu mën na def ay subvention mais financement yi ministère de la microfinance di joxe dañu ne nañ ko jaarale ci institution de microfinance institution de microfinance yooyu dañu li tax ñu koy def dañu jege askan président bi di wax discours dafa wax lu am solo dafa ne dëgg la koppar yi ngeen ñuy jox am na solo mais soxla nañu mise à niveau logiciel soxla nañu renforcement de capacité wax naa leen sànq ñu ngi liggéey ak FIMF am na d'ailleurs programme nationale d'accompagnement boo xam ne président nee na nañu seet mutuelle isolé yi nan lañ leen war a taxawal ndaxte ñaaree ñi dëkk ci gox ñooy dajaloo am seen mutuelle gox kon boo fa jaaralee ndimbal day daal di dal ci saa si de manière directe ci population di remercier MEC wóoluwante bu yëmbal bi nga xam ne ñoom ñoo ñu dalal ndax ñoom ñoo jël financement bi ñu jagleel six caisses yëpp ndax bokk na ci mutuelle yi ñu financé tey wóoluwante moom am na juróom benn fukki million ak ñett ak lu topp meg jàppoo liggéeyu ngeexoox am na juróom fukki million ak ñeent ak genn wàll meg sant sunu borom am na fukki million ak ñaar fukki million ak lu topp meg dimbalante am na juróom-ñetti million meg Redibé am na ñaar fukki million ak benn meg Karambenoor am na fanweeri million ak juróom-ñett may leeral encore une fois ne ñaar téeméeri million yi mi ngi ci keesu urmex ndax damay bañ sama càmmiñ Babacar Ndaw ne ah dafa wax rek dem ministre bi daa ñëw wax rek dem te te ministre bi dafa wax mu dugg ci kees bi